حتى أكون بماء الخيب ريانا مكن واسع وموكس اجعل بتوسعة كليلة الخدر يا ننفع fii ka jaal yal muqtada faniin bilaa sanaanin wa kammil anbiyaa yaanan fa ahyaana yasir li al xayra wa sinni wa sid rashadi yaa naafian lam yasal barran wa mannaana mbokki jullit mbokki taalibe yi ah ñoo ngi fii nag ci bis bu màgg bis bu tedd muy bis bu kan jàmbaar ja Cheikh Modou Fadal Mbacké ah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah, doomam ju baax ja Cheikh Mouhamadoul Amine Bara buñ ne Cheikh Mamadou Lamine Bara nag ñu ngi fii Touba Aliya pàkk bii nga xam ne moom la ko Serigne Fallou Mbacke jàmbaaram ja dëloon moom Cheikh Mamadou Lamine Bara waaye ñu ñëw tey jii ci këram gi fekk fi jàmbaar jàmbaar ñañu xare di ko baax di jëwriñ di koo xam ni yoonu murit damaa rawati dama damaa damaa jëlale yoonu kër sëñ Fall waaye yoonu murit yoonu murit kenn du ko laajte moom kan Serigne Khadim Gueye Alaaji Baara ki nga xam ne mooy sunu papa waaye nag ñu nekk fii tey ji ci waañ wi ànd kook sunu yaay Eh, Badiane Bali Badiane soxna Sooda Badiane maa ko tuddee Badiane Bali Badiane ñu ngi fii ci waañam bi ànd koog waa eh, eh, waa waa TV TV production Tawfekh production waa Tawfekh production yàlla na nga am télé yu bari bari bari bari bari ci barke bi Cheikh Mamadou Fadal borom bis bi waaye daal ci ci ci ci gàttal daal mën nañ leen a présenter fii lu bari mën nañ leen a lu bari suñu yaay Sooda Badiane lañu àndal nekk nii ci ci waañ wi xeet bu ne na nag am na fi xeet bu ne am na fi maanaam tey jii togg nan su ma juumul togg nan ñeenti plat xaw ma juróom misiw yi ña nga nale afra naar yi ña nga nale afra xar yi ña nga nale eh, togg nan mbaxalu naar ah togg nan yaasa yaasa ginaar misiw yi moom daal tubaarkàlla lépp mi ngi fi ñu ànd koog nag jigéen ju baax jigéen joo xam nee naa leen foo gis eh, góor gu baax jigéen ju baaxam ca wetam muy suñu yaay Soda Badiane yàlla na yàlla guddal fanam bis bii ni muy jàppalee Pape Khadim ñun njaboot gi gis nañu ko ñun taalibe yi gis nañu ko kër gi ku fi ñëw doo xiif doo mar di nga lekk ba suur di nga naan ba mandi booy dem di nga am loo yóbbaale waaye Sidi lën nga yëg tey bi nga taxawee ci ci ci ci ginnaaw waañu soxna Soda Badiane bi mu muy sa sa soxna si Papa Khadim Gueye Alaaji Baara loo yëg présenté ma kii mooy seex mbay Peex rak la ci alaaji Ablaye Mbaye Peex di sama mag di sama xarit Cheikh euh, maa ngi dégg micro léegi Sidi di ko laaj loolu yëg waaye ginnaaw Sidi da laa dël euh, naa laaj Cheikh yaa ngi fii ci kër Pape bi alaaji Baar waaye nag nga soxnaam su baax soxna Sooda Badiane loo yëg bi nga taxawee fii loo yëg. li may yëg mooy sant sëñ Touba waaye sant alaaji Baar alaaji Baar lu mu defal. moo gën lu mu defarul waaye pàkk bi ki moo ko def ni mu mel waaye jëmm ji ba mu jàppee ba tey bàyyiwul doon Baay Faal bëgg xaadim lool boo xaadim tàmbalee liggéey bi moom moom ba liggéey bi jeex ay xaadim murit la ko alaaji baara bàyyee yàqul boo bu bis bi dikkee jànkatu xasida yi ñëpp dinañ ñëw kuy nit ku baax wala sëriñ da nga ñëw fii ni ko woon alaaj baara woon ne ko xaadim fàkkal dëkk Cheikh Moustapha ngi si biir waaye lii cërub suñu borom la alaaj baara ko defal tey ku wàcc ku wàcc aliya sa xel dem si xaadim alaaj baara sëñ baara nag dafa mën a defaraate xoolal teraanga yi xoolal teraanga yi nag yi xoolal gileem yi xoolal xar waaye lépp sant sëñ bamba la xaadim nee na man lépp lu ma def rek sëñ baara la te ku sëñ baara fa doo fanaan bitti waaye jenn yow ñëpp a ngi lay sant di la gërëm yow waxuma la waaye waaye waaye ñi bëgg gis xaadim sax buñ mënta gis xaadim sax buñ yemee si yow mel na ne gis nan xaadim ndax di nga yëkkati sa alal di teral ngir xaadim di yëkkati sa addi di joxe ngir xaadim yow àndu xaadim ba pare nax ko sëñ Tuubaa nga ko toppee seex yàlla na yàlla fay na Pape Sidi Pape Sidi dafa mel ne ñu ngi toll nag ci ci wàllu xéewlu yi te ku ne xéewlu Sidi xam ne nag yu baax yi Sidi ci ngay yëngu Sidi xar yu baax yi voo yi ci ngay yëngu Sidi ganaar am na fi pittax am na fi lépp am na fi waaw oh, si Sidi yooyu yooyu yow noo ko waajalee lee Dakar sax booba indi ko fi ndax yow dégg naa fii lépp luñ fi rindi rek rindi laa la wax de damaa jëlee lay ganaar lépp luñ fi rindi yaa ko jaay Pape Khadim yaa indi yaa ko booleeg buuse yi ko fees maa leen dalal dé alhamdulilah jërëjëfati Serigne Saliou macha allah di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu di la ñaanal di ñaanal bu baax Serigne Khadim gi El Hadj Baar mi nga xamante ni moo tax képp ku fi ñëw rek yàlla ak jëmmam ji wax yàlla di santaat bu baax soxna Sora Badiane sa Badiane Zakro Wali nga xamante ni macha allah ban nekkee Dakaaru lañ ma woo téléphone waaw jël jël jël jël xaalis bu jël millions yu bari teg sama loxo na ma jënd daal bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg nan daal bis ba. lépp lu fay gàtt lu fay gàtt ñu koy rendi muy veau yi muy agneau yi muy pigeon muy pitax yi muy dàqal jàpp yi yëpp bul bàyyi dara lépp yóbbu Tuuba ba ka yàlla dogalee ma def loolu jël xar yéeg nag yéeg yëpp dàq indi tuba macha allah jëlee ko ba Dakar jëlee ko ba Dakar ji diwaanu Seras jëlee ko Dakar indi ko ba ñëwee ma ma ba ñëw sax gone yi ma jiitu ak xar yi ak nag ma ma ma ma wax gone yi gone yi nga xam ñoo ko war a fees ma leen dugg leen dugg leen ci oto yi dugg leen ci oto yi ngeen dem ngeen dem kër xaadim boobu jiitu leen maa ngi ñëw topp seen ginnaaw ba ñëwee ñu woo ma ne ma egsi nañ ma jël lépp na la Saliou takk sa loxo na la xale yi bu ñëwee na nga leen toppatool xar yeeg nag yëpp nañ ko defar fii daal li mën a mën a xamal mooy lépp loo xamante ni muy lu ñu war a xiwlu ab jullit tam dagal ci jullit lépp soxna Soda jox na ma addiya ji xaalis mi na ma dàqal jëm fa ah. kon loolu noonu tubarkàlla fii daal ku fi ñëw ku wéet lii daal dama lagan boo ñëwee di nga ko fekk fii Issa Dimbar moo mënu gan di nga fekk waaw ndékki yi tamit ban xëyee dañoo dressé ndékki boo ñëwee da ngay jàpp ne ñu ngi biir kin fat place hôtel yi gën a mag ci hôtel yi ma ne ndékki yi boo ñëwee ndékki soxna soxna bañaan yi boo ñëwee da ngay jàpp ne ñu ngi kin fat place ca bi gën a mag ci hôtel yi nekk Dakar boo ñëwee fii ci kër xaarim gi allié maanaam maanaam lu ne ngi ci waaw <laughs> lu ne ngi fi lu ne lu ne rek ndekki am na ko waaw laax sax dañ koo defar laax <laughs> laax ak laax boo xamante ni day am soow am nettari boo bëgg am waaw barki Cheikh Issa Diène kookoo nekkoon Sidi Diène Sidi nag kenn du ko laajte ci kër Serigne Khadim Gueye El Hadj Baara mooy taaw ci kër gi maa ci topp nee naa ñaari doom yii la Pape Khadim am Sidi day taaw maa ci topp voilà man tamit man bii moo ma fi fi jox santal ma ko ci de bu baax a baax a baax ndax sama jëmm ju tuuti ji mu jël lépp lu fi nekk ci ci nag ci xar dénk ma ko sama loxo bii ma fi ñetti fan boobu ba léegi solu ma ma yëre loolu santal ma ko ci ci waay Sidi. walaay waa Serigne Saliou la kontaan nañ ci ndax boobu avant maa ñëw xale yi bañ ñëwee xar yi ñëw nag yi ñëw lépp dama ko jël teg ko sa loxo ndax yow macha allah nit ku yaru waaw nit ku yaru ndax ba nga ñëwee rek da ne dar sama ginnaaw topp ma lu ma la wax nga def ko lu ma la tere nga bakk ba léegi macha allah tubaarkàlla sëñ Saliou yow ndam rek nga bëgg sama baaji yow it waaw waaw kii nag ñu taxawal mooy di lépp xadim di xaritu bàyyam ñu koy si wax siisa siisa maafe di ko baax di xaritu di xaritu soxna Soro Badiane Badiane Sakkour Waly. Alaaji Siise maa ngi lay nuyu. Alaaj Cissé maa ngi lay nuyu euh, ginnaaw bi nga ñëwee fii ci bis bi euh, sunu papa xaarim gi Alaaj Baara di fi màggal bisub Serigne Baara Mbacke jàmbaaram ja euh, nga nga nekk léppam ni ko sii di présenté léegi maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay tatagal maa ngi lay ziar baax ci ci bis bi. ah maa ngi leen di nuyu di leen di leen ziare bu baax a baax a baax di nuyu sama sama jigéenu bopp bii muy aja sama jigéenu bopp bii muy ajaratu Soore Badiate. day sama xarit day moom moom day sama xaritu bopp di sama jigéen di sama lépp di jigéen ju jàmbaare joo xamante ni sii lu dul ndamal xaadim rek ñoru ko jigéen la joo xamante ne sii jigéen ju jafe ci jigéen ñi la jigéen ju jafe ci jigéen ñi la ndax mooy jigéen ju joo xamante ne sii yi tey ni àdduna tënkoo ni àdduna tënkoo nga xamante ne sii sëñ xaadim day xëy départ taal otoom wuti Dakar dem ville moom mu xëy tàngal ndékki li def ko ci micro-ondes di wër xaadim pour yóbbul ko ko mu ndékki loolu de xanaa bëri woo loo koy gis ko koy def jël micro on micro micro on lay jël def ci ndékki li di wër xaadim ville di di wër xaadim ville jigéen ju jàmbaar jigéen ju baax la moo tax nga gis fi ajaratu nday mbàkke mii moom sëñ moom sëñ fàllu ak sa jeey muy muy jigéen ju baax ju am maanaa latewul fenn doo ko gis fenn lii mu def nii du ko defal kenn kon bu ko defee tey jii ci xaritam bii moo lay won nii am na xa Soda Badiane jigéen ju am maanaa la teel a ñëw taxaw taxawaay bi taxaw taxawaay bi kon daal ñi ngi ñaan yàlla daal ci barkeb Serigne Touba ñi ngi ñaan yàlla ci barke Serigne Touba barkeb Serigne Fallou barke Cheikh Mouhamadou Lamine Bara lii ñu màggal ko téeméeri at xaadim yàlla na ko yàlla defal xéewal yu bari ci barkeb sëriñam bu tedd ba jërë ngeen jëf amin amin amin amin jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf kon nag duñ def lu dul rek toppale leen rek waaw moom daal euh, tey journée spéciale la ñu ngi fii ci Aliya kër eh, suñu papa Xaadim Gueye alaaji Baara nga xam ne tey mi ngi fii di ko màggal eh, màggaluk eh, Serigne Baara Mbacke Xaadim Rasul Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ñu ngi fii ay jigéen ju baax ni ma ko waxee léegi soxna Ndeye Mbacke Serigne Fallou Fallou Assi ma nga nële toog soxna Ndeye Mbacke duggoon ak kenn soxna Ndeye Mbacke lee mu def du ko defal kenn soxna Ndeye Mbacke jàmbaar la waaye nag daa mbokk garmi la garmi garaarar lii mu defal soxna euh, bàjjan Sooda Badiane nii ay yii du ko defal kenn soxna Ndeye Mbacke du ko ne kenn waaye daa bëgg ajaratu Sooda Badiane fonk ajaratu Sooda Badiane ay teraangaam nag aksi ci euh, yaay Sooda Badiane ay teraangaam aksi ci euh, Serigne Khadim Gueye Alaaji Baara mu ñëw ak jëmmam ak ñi mu àndal teew fii bàjjan sooda nag wóolu gi mu ko wóoloo tax mu teg ko nële mu jàkkaarloog ñun kon soxna nday Mbacke ñi ngi bég ci sa teewaay bi soxna nday Mbacke ñi ngi lay ñaanal yow it yàlla na nga yàgg a taxaw euh, soxna sooda badian ci barkeb Cheikh na Xadim soxna Ndeye Mbacke ñi ngi bég ci ci yow soxna Ndeye Mbacke ñi ngi lay ñaanal soxna Ndeye Mbacke yàlla na yàlla guddal sa fan nii nga taxawoo sunu papa xaarim gi alaaj baara waaye taxawoo ko soxna sooda badian ci bis bi yow doo gone kenn nii nga def nii doo ko defal kenn kon nag ñi ngi lay ñaanal yal yàlla guddal sa sa taxawaay rafet na ci bis bii nga xam ne moom la soxna soo day taxawal borom këram Serigne Pape Xaarim gi alaaj baar kon sama télévision nan dem ba ci kanam tuuti lu fi xew rek dinaa la ko expliquer bi soob yàlla ba ma yàlla bind expliquer dong nga taxawal dinaa la ko expliquer ولتكفنا يوم جم الخلق نيرانا هب لي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وأخل لدفئك بشرانا ملكني يا يوم أشيء الله يفارقني من البشارات فيه daarayni jiiraana ملكني اليوم شيء ألا يفارقني من البشارات في دارين جيرانا عليك وزني بأب كان أجيب بها مهن البيوت التي تنسب ويدانا ليسوق دواما فتوات نكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام قدانا أنت العليم الذي حلمت حزبك ما فأخو بتيك فيه دانا فميدانا أنت العليم الذي sëñ Mahmouda nee na mi ngi nuyu ñëpp beral nuyoo sëriñ Xaadim Géey mii nga xam ne moo tax mu ñëw fii tey boole ko ci ñi ñuy war a siyaare ci kër sëñ Alaaji Baara la waral loola nag moo di pëstéefam bu wér ci sëñ Touba ak pëstéefam bu wér ci Cheikh Mouhamadul Fadal ak pëstéefam bu ràññiku nag ci Alaaji Mamadou Lamine Baara loolu mooy sababu sëñ Mahmoudan ñëw fi tey nga xam ne képp ku xam sëñ Xaadim rek xam nga ko ci loolu ni mu téyee Cheikh Mouhamadou Lamine Baara nag téyee na ko njabootu sëriñ Touba gépp ci kóllëre akuk jàpp ak pësteef ar bii daaw Serigne Mahmoudan ñëwoon na fi ñëwaat fi nii ren di ñaan yàlla defaat ko déwén te di ko ñaanal yokkute ak mucc ci barkeb sëriñ Touba ndax matal na wëllëre lool ci kër sëriñ Alaaji Baara te sëñ Mahmoudan nee na xam na ci dara li ci des nag sant ko bu baax rek gërëm ko fedd li kóllëre gi di ñaan yàlla ak sëriñ Touba mu téyel ñu ko ñi mu àndal ñëpp nag ñi ci ëpp ay kilifa lañu waaye ñëpp xam nañ ko moom sëñ xaadim mi ci pastéefam akuk dëggoom akuk jàppam sëriñ Touba ñi ngi lay ñaanal yàlla nag ci barkeb sëriñ Touba yàlla defal la tawféex di ñaan yàlla it ku teew ci fi barab bi yàlla jéggal la say bakkaar defal la xéewal yu yaatu ci darajay borom bis bi jërëjëf sëriñ xaadim tàllal leen sëñ ñaan ولتكفي يوم باس الخلق نيرانا خيب رجاء الذي يخلي في أبد من حامي خواكب نلج ميزانا لو تبر العمل القطاع له في كل ما فيك ينوي من أدن زانا muy tawfeex ju rëy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 woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le